bu mu laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñu yëkkati bu mu laal suuf ilaawu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi bisimilah salaamaaleykum mbokku taalibe ñi ngi nuyu ku nekk ci turam ak ci santam eh, xanaa di woo mbokku taalibe yëpp murid fépp foo mënti nekk ci ndakaaru ak ci bitim réew ci suñu bis bi nga xam ne mooy bisu murid ji ñu fas yéene euh, jaayante ci li nga xam ne mooy mooy mooy yitte gu taxaw te jàmp lool jëm ci maam taxawal gi ñu war a taxal euh, siège social bu daara safinatu safinatu amaan ak institut institut islamique bi nga xam ne ci la ñuy fas yéene yaatal liggéey liggéeyal liggéeyal sëriñ bi doon dafa doon loo xam ne doon farta gu far la ci jëm ci maam bëgg-bëgg sëriñ bi ci yëkkati xam-xam te yaatal aussi xam yaatal aussi jàngaleem sëriñ bi kon ñu ngi ci woo ñëpp di woo murid fu mu mënti nekk bu doonte bu fekkee mënta ñëw mënta ñëw tamit mu xool ci jumtukaay yi lii di Wave wala Orange Money xam ne fépp mënut nekk mënut nekk rek mën nañoo jotale ak yéen waaw kon ñu ciy woo ñëpp rek asalaamaaleykum. bu mu laal suuf nañ ko yëkkati loolu la ñuy yëkkati bu mu suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.